kanam dem na ca Bayern de Munich kon sénégalais yépp ki ñuy xaar moo di Kalidou Koulibaly mi nga xam ne yàgg na lool ca Napoli def na fa juróom-ñetti at journal bi nag nee na ko nekkatoo gone ndax am nga fanweeri at ak benn te jamono jiikat soo soppiwul xarkanam kanam jógee ca Napoli loolee mën naa bañ a yembati kon nag soppil xar kanam waaye nag journal bi li mu ko xamal moo di su fekkee dem nga ca Barcelone nag loolee mooy tebbi nga aas ndax Barcelone club bu mag la te soo fa demee di nga a ay coupe Xavi tamit ma a jàppale ca défense boobee te Xavi bëgg na la mi ngi lay bàyyi xel kon soo demee ca Barcelone rek mooy tebbi nga aas ñancoo Sadio Mané it mi ngi ci journal bi moom nag ci taarixu footballu Sénégal mooy sóor bi ci gën a seer ci wàllu transfert moom daal li ñu ko jaayee mosuñu koo jaayee benn doomu Sénégal kon ma ngay wëy di wane boppam moom saajo Mané Samba jàlloo it mi ngi ci surnale bi moom nag Europe gépp a ngi koy bàyyi xel moo xam France la Espagne Angleterre ba ca Allemagne ñëpp a ngi koy bàyyi xel ci fàttali gone gi ma nga ca Dinamo Kiev te amatul football kon gone gi mën naa tànn fu ko neex mu dem foofee xaatim contrat am moom nag ci fàttali ba léegi moom mii ku Sénégal am ci moom yaakaar la ndax Sadio Mané mii kat bu ñuy wut ku ko remplacer moom mii mën na ko wuutu ndax la muy def mën na ko journal bi tamit ñëw na ci final coupe du Sénégal loole nag suba la ñu koy xaar incha allah ca stade de Lat Dior ba ca Thiès waaye final boobee nag ñaar ñi ñoo cay jàkkaarloo muy étoile Lusitana ak Casa Sport final a ngi record yéene kay Sadio Mané la fësal ca xët wu njëkk wa samp ab laaj nag ginnaaw bu mu jógee ca Liverpool wutali Bayern de Munich ban place moo gën ca club boobee ci doomu Sénégal bii di Sadio Mané muy post bi nga xam ne ñëpp moom lañ ko xamee muy ex excentré ak neuf bi nga xam ne yogoon club doon na ko ko football loo ca Liverpool wala faux neuf maanaam mu nekk ci ginnaaw attaquant bi di ko jàppale ñetti place yooyee fan ngeen jàpp ne moo gën ci Sadio Mané ca Bayern de Munich maa ngi leen koy samp comme laaj ci bi tamit ñëw na ci làmb ji sénégalais yépp di xaar suba war a dox ci diggante Ada fas ak kolifay numéro 2 lamb jooju mi ngi amee ca arène national waaye nag ñi tëgg lamb jaag ñi nga xamante ni ñooy amateurs yi li ñu bëgg moo di jàmm ak salaam ñu dem ca làmb ji ci jàmm ñibbisi ci jàmm non violence ndax lamb ñoo ko moom kon bu ñu ko yàqal sunu bopp ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Calvin Flix la fësal ca xët wu njëkk wa gone gi day dem ca Manchester City waaye nag wane boppam ci mercato bi rawatina doomu Angleterre yi daaw kat daawkat Grealish moom mi nga xamante ni footballu Angleterre dañoo am ci moom yaakaar moom la demoon jënd indi ko ren jii tamit doomu Angleterre bii nga xam ne day départ partant ca équipe national boobee moom la bëgg indi foofe te daanaka yëf ya yemb na ndax quarante cinq millions de livres sterling yi nga xam ne waa Leeds United moom lañ doon laaj ci gone gi waa mën Manchester City noppi nañu ngir def ko ci gone gi mu foofee jàppale leen Pep Guardiola nag la mu bëgg moo di Fernandinho nee na Rodri rek doyul kuy wujje ak Rodri laa bëgg te loole daanaka yemb na kon nag waa Manchester City def nañu cent millions de livres sterling ci mercato bi gonek Norvège gi di Haaland ñoo ngi ko jëndee ca Dortmund cinquante cinq millions de livres sterling doomu Angleterre bii di Calvin Phillips ñoo ngi bëgg def ci moom quarante cinq millions de livres sterling kon defagum nañu cent millions de livres sterling ci mercato bi ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene Asensio ak Ceballos la fësal ca xët wu njëkk wa ñaari gone yii nag Real de Madrid ubbil na leen bunt bi te dàqul seenug jógee ñaar ñi ñëpp seen contrat 2023 la war a jeex waaye tegaloon na leen contrat ba léegi yéeyu ñu ca yàbbi wuñu ca moo tax Real de Madrid jëlaat na contrat yi ne leen su ngeen gisee guro yéey leen su leen club bëggee waxtaan leen ak moom ngeen dem ndax dama leen di jaay waaye ñaari gone yi nag dàquñu toog ca club boobe ba seen contrat jeex tàkk ñu door faa jógee waaye Real nee leen loolu du fi amee su ma gisee club bu leen bëgg dama leen di jaay ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Vinicius la fësal ca xët wu njëkk wa dalal ko séq ak moom waxtaan bu yaatu li mu ko xamal moo di def nga saison bu baax waaye li ko Vinicius tontu moo di saison boobee de nit ñi nee na ñu baax na waaye man dama bëgg lu gën li ma defoon te loolee maa ngi ciy liggéey Vinicius nag dafa demoon ca Brésil waaye ba mu demee foofe nag dafa dajale ñi nga xam ne dañoo ñàkk amuñu mu leen di dimbali na foofee sax kàddu ne amuñu ma leen di dimbale moo ma gënal ma dugal bit ci finale Ligue des champions ndax nit ku amul nga koy dimbale loolee lu nekk a ngi ci te man dama fas yéene ku ma gis tane la rek dimbali la Rodrigo yit mi ngi ci journal bi moom nag waa Real de Madrid noppi nañu ngir xaatimal ko beneen contrat yokk lañu koy fay li ko waral moo di kat bi saison bi di waaj a jeex moom mii di Rodrigo dafa doxal bu baax a baax génne waa Real de Madrid ci ay guute mën nañu caa lim ñaari match yi contre Chelsea ak contre Manchester City loolee moo tax kat na ko yow mii kat mbir nga kon dañuy xaatim ak yow beneen contrat nga toog fii liggéey ak ñun ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Barcelone nag am na wërsëg bu yaatu ngir jël doomu France bii di Jules di football ca FC Séville li ko waral moo di ka ko doon xëccool di Chelsea jamono jii kat dafa woyofal mbir ya ndax waa Chelsea Mathias de Ligt la ñuy bàyyi xel te dañ koo bëgg a jënd loolee nag tax na Barcelone am na wërsëg wu yaatu ngir jël doomu France bi mu dem foofe jàppale leen gone gi bëgg na Barcelone te Xavi ma leen di tàggatit bëgg na gone gi waaye Barça la mu bëgg moo di 65 millions d'euros yi nga xam ne waa Séville ñoo ngi koy laaj ci gone gi waa Séville wàññi ko Barça songu mbir moomee Napoli ca Italie tamit ubbil nañu buntu yi Barcelone ne leen ñëw leen ma jaay leen doomu Sénégal bi li ko waral moo di du noppiwul ngir yokk contrat am ca Napoli te benn saison képp moo ko fa dese te bëgg na Barcelone moo tax président wu Napoli bi li mu leen xamal moo di ñëw leen ñu toog waxtaan ma jaay leen gone gi mu ñëw ci seenub défense jàppale leen waaye Lewandowski ci journal bi woo waa Bayéedu de Munich ne leen waxtaan leen ak Barcelone jaay ma waa Barcelone foofee laa bëgg a football waa Manchester United tamit bàyyeeguñu De Jong ba léegi ña ngay poussé di def lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir yóbbu ko ca milieu de terrain boobee mu jàppale Eric Ten Hag mi nga xam ne xamante nañu bu baax a baax ñu jugee sport jël mundoo Deportivo Xavi la fësal ca xër wu njëkk wa onze bi nga xamante ni kat saison bii di ñëw moom la bëgg a footballé onze boobee la Mundo becc ca xër wu njëkk wa ca kang ya Ter Stegen la la jàpp ne bu leen amee baax na muy Jules Koundé su fekkee ñëw na daf koy boole ak Araujo latéral gauche Jordi Alba mi nga xam ne miin na ko latéral droit nag Azpilicueta mi nga xam ne ma nga ca Chelsea moom la bëgg ca milieu de terrain ba su fekkee am na lii may waaj a lim moom la bëgg muy Busquets Pedri ak De su fekkee nag De dafa dem Bernardo Silva ma nekk ca Man City moom la fa bëgg mu wuutu ko attaque ba nag moom ka mu yaakaar moo di Robert Lewandowski waaye bu dee ca wetu ndijoor ga Ousmane Dembélé mi nga xam ne contrat day waaj jeex te yokkagul su fa toogee moom la fa yaakaar su fekkee dem na nag Rafinha ma nekk ca Leeds United moom la bëgg mu wuutu Ousmane Dembélé bu dee ca wetu càmmoñ ga moom ñaar ñii ñoo nga ca Barcelone muy an Fati ak Ferran ñaar ñooñeekat ku mën ci place boobee rek yow la fa Xavi di teg kon Xavi wax na bëgg-bëggam waa Barcelone ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello por football bi nag xam nañu kañ lay dellu si waat ca Italie googee muy Serie A bi nga xam ne waa Italie jëpp namm nañu ko le 13 août incha allah lañ koy door foofee ca itali yëf ya nag gaañaa ngi koy xaar bu baax a baax waaye nag ci diggante bi dina am pause maanaam dina am noppalu goo xam ne li ko waral moo di coupe du monde ba ñu jëm ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Juve nag xàll na aw yoon ngir jaar ca am doomu Italie bii di Zaniolo nekk ca AS Roma la ñu bëgg moo di toog waa ak waa AS Roma waxtaan ak ñoom ne leen kat dinañ leen jox dix millions d'euros mu ànd ak option d'achat obligatoire maanaam option d'achat boo xam ne bu saison bi jeexee waa Juve dañ koy jënd far la force su fekkee nag waa AS Roma bëgguñu loole ñoom noppi nañu ngir dugal ca Arthur Melo ngir kat gone gi ñëw foofee li ñu jàpp moo di waxtaan ba mën naa sotti ba mu njëkk fa Angel mi nga xam mbiram ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Paulo Dybala la fësal ca xët wu njëkk wa Inter noppeeguñu ci ay mbiram de waa Inter li xam xamle moo di leen may tuuti rek ba ñu jaay ay jour nga xamante ni kat dinañu mën a songu mbiru Dybala Dybala nag agent libre la maanaam waa Inter suñu ko bëggee duñu ko jënd lañ koy fay la ñu bëgg a dajale te loolee faaw ñu jaay ay jour ngir mën koo xam xayma ko ba pare door songu mbiru Dybala loolee nag waa Inter nee nañu nañ leen may fukki fan rek lépp mën naa yemb combat boobee nag xam nañu calendrier ba nu mu tëddee waaye nag derbi bi nga xam ne Milan gépp moom la ñuy xaar war a dox ci diggante Inter ak AC Milan mi ngi war a am ca juróomeelu bëccëg ba kon gaañi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah